mbokk yi final baa ngi noonu beneen bis nag original final bee nekk noonu ñoom ñaar ku ci daan yaa jël moto bi. drapeau drapeau bi dañ ko fàtte ku jël lamb ji nag moom ma jox la drapeau bi dégg ngeen dañ ko fàtte. aca fair play nag ay jàmbaar ngeen lii ci jeunesse bi. buñ leen woote tegal leen xaalis su ne ku leen ngeen ñëw xaal bi yéene ko moom te ñun dañuy xaru ndax yéen man da leen ngeen mu ñëw di bëre lii mooy fulla ak fayda aca félicitation kan la ma yor gaañ ok beneen bi <laughs> ah Birame Mbissine original Birame Mbissine mooy woon ginnaaw original la ngay daw original Birame Mbissine original jël na Birame Mbissine Birame Mbissine jël na tànk original Birame Mbissine original Birame Mbissine original original Birame Mbissine original Birame Mbissine original Birame Mbissine jàllale na ko original Birame Mbissine daan na original Birame Mbissine daan na original waaw Birame Mbissine daan na ko Birame Mbissine daan na original